ne président euh, Bassirou Diomaye fay par exemple ni mu tasee assemblée bi benn objectif la amoon mooy sauver la premier ministre mais dimbale ko aussi ba du dem defi déclaration de politique générale te DPG boobu ñu bëri ñu ngi ko doon xaar les partenaires financiers ak ñeneen pour ñu xam fan la ñu jëmee Sénégal. li may wax encore une fois mooy nañ xool lan mooy intérêt Sénégal mais euh, DPG bi. Euh, du nécessité. no Ba Amadou Ba. waaw DPG bi mu def lan ban njëriñ la est-ce que tax na trajectoire bi Sénégal jël euh, changé. est-ce que li si waxoon yëpp def nañ ko. non ban njëriñ cest dire que y a y a des formalités démocratiques qui sont là qui ne sont pas d'un intérêt supérieur pour la nation. Okay. même si il faut veiller à ce que. respecter les institutions. mais boo xoolee ba mu xool ba mu jeex mooy mu def. déclaration politique général boo xam dafay ñëw wax dem yoonam te la muy wax kenn jëfewu ko amalul Sénégal benn njëriñ donc il faut pas ñu focaliser DPG DPG DPG. Hmm. benn ñaar mooy DPG bi constitution bi joxewul jale à partir de ce moment là que mu def ko parce que am na ñu def sept mois doo ko def DPG te dara xewu fi mais fii c'est une situation exceptionnelle donc bu defee bu deful DPG. Euh, ci six mois yi mu toog amalul benn ngaañ Sénégal bu ko defee après c'est c'est tant de temps plus que maintenant kenn kan moo mën a xalaat prévoir lan moo naroon ci DPG bi ñoom wax nañ ko bu ñëwoon dañ koy firir xaw ma dañ koy ah extra extra ça veut dire que y a des dispositions yoo xam ne bu duggoon foofu sax xëy na boo la cay jógee amul benn njëriñ Sénégal parce que boo duggee ci ci assemblée bu la hostile boo waxee ñu saaga la yuuxu la di la wax loo xam ne mënoo ci dara. parce que c'est des députés kenn ko mën a dégg finalement. c'est des députés li ñu wax dara du leen ci topp. ci biir assemblée ñu nekk lu leen neex ñu wax ñu wax leen kenn du fa déglu kenn du DPG ban njëriñ la am Sénégal donc boo ko xoolee noonu di nga xam lii kat wax dëgg yàlla amul solo c'est formel constitution bi wax na ko. Mm-hmm. mais euh, am na nu doon demee maanaam comme ni ma ko décrire tout léegi ngay wax ñu lay yuuxu ngay wax ñu lay saaga di la kenn dépp kenn du la déglu ba bu pare ñu defal la motion de censure daane la la ban njëriñ la amal Sénégal. Hmm. amul benn njëriñ Sénégal. donc il faut pas que ñu toog ñu DPG ay formalité yoo xam ne bon euh, amul amul incidence majeure sur la marche de la République. Mmh. donc. man euh, vraiment euh, du loo xam ne am na pour man enjeu c'est vrai que li gënoon mooy ñoom député yi d'abord euh, euh, débat d'orientation bi ñu nangu ko nanguwuñ ko ñu def def DPG dans les normes loolu moo gënoon rafet ci démocratie bi mais bu fekkee ne am na neneen lu mu demee loo xam ne day yàq démocratie bi mais mu demee nii moo gën. man noonu laa ko gisee. Euh, c' est vrai que li gënoon mooy ñoom ñu accepte débat démocratique d' orientation budgétaire. Mm. li gënoon mooy Ousmane ko def déclaration dans les normes ñu déglu ko correctement mu def déclaration mu jeex loolu moo gënoon ci démocratie bi mais puisque kenn rafetul rafetul ñoom député yi rafetuluñu ñeneen itam di résister mais écoute euh, je crois que. peut-être li moo gën sérieux. kon valider nga motif yi président joxe pour tas assemblée nationale. je comprends ça mm. je comprends ça. je contexte bi loolu laa laajoon bu fekkee contexte bi loolu laaj nga def ko mais sa sa jaan wàcc na. Mm-hmm. alors euh, amoo inquiétude aussi ci élection yi ñu jàpp le 17 novembre problème délai am nañu koy posé mais aussi l'équation du parrainage sauf bu fekkee dañ ko nar a dindi et bu ko dindee aussi euh, inconvénient bi mooy mun nañu amaat. autant de listes qu'en 2017 47 peut-être wala lu ko ëpp loolu d'ailleurs moo taxoon ñu ñu indi parrainage bi. non gis nañ ne quand Sénégal moom euh, organisme yi gérer élection yi am nañ xarañte boo xam ne. Hmm. en en rien de temps ils peuvent le fair donc de ce point de vue amul euh, amul euh, luñ ci tiit. Euh, maintenant euh, conseil constitutionnel tranché question yu bari. parrainage amut. parenage amut euh, caution bi xam ne ñaata la maintenant li ci des mooy euh, lii awaa alliance pour la transparence des élections laaj mhm. defe naa ne waa nguur yi dañu leen war a déglu defe ko ni mu gën a rafetee parce que effectivement tey li gën mooy euh, gouvernement bi woote ndaje mhm. parti politique yi toog société civile toog ñu xool lan lañ war a def ba nga xam ne euh, liste yu bare bare bare bare du fi parce que liste yi li ko woon mooy gis nañ ko c'est le président moo financé ay liste yu bare il l'a avoué <laughs> donc bu fekkee ne loolu amut ñuy xool liste yu kii mais affaire yi du du bëri tellement donc bu bëriwul tellement ñu dem bu fekkee mën nañu am bulletin unique ñu def bulletin unique euh, wàññi dépense yi mhm. mais loolu waxtaan la rek bu ñu waxtaanee defe naa mën nañ def li nga xam ne mooy intérêt général li gën ci réew mi bu fekkee ñëpp dañ ko def ñëwuloo pour yàq ñëwuloo pour tricher. Mm-hmm. parce que gouvernement bi mun nañ soupçonner dafa ñëw pour tricher mm-hmm. ñëlee gouvernement bi yaakaar nañu dañoo pour yàq mais ñii bu fekkee ne loolu du seen intention ñëpp dañoo bëgg defar bu boobaa toog waxtaan dina yomb loo ci waaye mun def pour que ñu waxtaan ci ba lépp jaar yoon defe naa ne loolu lañ war a def. maintenant euh, euh, transparence élection yi bon am na yoo xam ne peut-être vraiment dañ ko regretter parce qu'en vérité euh, ñu bari en tout cas ñun mos wax nañu ko ne woon nañu bu fekkee dañu bëgg démocratie bi mu kanam mode de désignation des députés dañ ko war a changer parce que d'abord député yi lu tax ñu naan man député Macky laa wala député parce que kooku mooy toog ci bureau am. nekk ñii ñooy liste bi benn liste yi. ba pare ñu dem ci raw gàddu. raw gàddu defal la campagne defal la lépp raw gàddu. amul lu gën a bon raw gàddu parce que bu fekkee ne benn tour la ñu dem ku majorité ku am majorité yow mën nga am vingt cinq pour cent kii am vingt quatre kii am vingt trois kii am onze ñu boole yow nga am vingt cinq pour cent ñii am soixante nga jël député yëpp mais ça c' est d' une injustice. traduirul volonté. non c' est c' est c' est c' mauvais pour la démocratie. loolu dañ ko far a jëlee. mais est-ce que loolu waxuñu ko woon jubbanti soog a dem ci ay. élections mais est-ce que mu ne non mënuñ ko dindi. que conseil constitutionnel mais sinon fi am. à moins que ñu dem non li may wax kay mooy est-ce que président warul woon lijjanti loolu yëpp parce que. ci discours bi mu njëkk a def waxoon na tamit ne dañuy xoolaat le processus électoral. ba waxoon ne sax dañuy dem vers la CENI. la commission électorale nationale waaw xam nga contexte bi moom ni mu demee bon je crois que c'était difficile voire impossible. mais il faut regretter que ñu ñëw ci régime bu bees te du ñu mën a soppi loolu nga xam ne c'est important. parce que sinon euh, assemblée bi ñu am bon ni ñu koy tëggee ni mu ngi koy tëggee du du du du mm. réalité bi réalité électorale bi parce que comme j'ai di mun ngi am vingt cinq pour cent kii am vingt quatre kii am vingt trois mm-hmm. ñeneen ñi am moyenne yi ba muy cent yow nga jël yëpp yóbbu donc ça ne reflète pas la volonté de l'électorat bon loolu duñ ko dindi mënuñ ko dindi wala boog c' est presque difficile voire impossible ñu dindi ko il faut le regretter. ni mu demee mais kooku amul mënoo désigner kii mooy responsable. Mm. malheureusement contexte bi moo fexee bi loolu am. donc am nay recommandations yu bëri yoo xam ne ñi nga xam ne ñoo doon évaluation élection yi defoon nañ ko bon malheureusement loolu aussi yu bëri du mu ne mais li am solo tey mooy ñu ñaax gouvernement bi ñaax opposition bi